li fi xewoon ci événement yooyu ba léegi am na ñoo xam ils sont en deuil lu ëpp soixante personnes ñàkk ci seen bakkan am na ñoo xam ñi ngi jooy ba léegi ngi seen baay bu ca faatu wala seen yaay bu ci faatu baax seen doom bu ci faatu mais bala ngay def am ni si na nga masawu ñooñu baalu àq ñooñu parce que loolu mu indi jàmm mais am si boo xam ne au mu que muy indi divisé baaxul yaa ngi fàttaliku oto bi nga xam ne dañ fa sànni woon euh, li éclaté woon ba cocktail molotov ba ay bakkan rot ci mais ñooñu ngi nan ngay yeewoo suba ne dama leen di amnistie ñooñu dañuy dee ci noonu ci neen fa nga dégg mun ne am day am amnistie ak réconciliation baat bi bedd la mooy vérité e réconciliation nañu leeral mbir yi ba ñuy baal xam nga man ak yow bu ñu jotee ba ñuy baalante ak foog ñu xool lu ñu boole lan la xool kenn moo toon ci ñun ñaar jàmm ñëw ñu soog a baalante ak